jërë ngeen jëf Antoine Félix Abdoulaye Diome daaj na démb ci assemblée nationale lu mburu dajul ci fuur journal lay fo nañu moom ministre intérieur ba ñu koy wooteel bit seem yi fara ci kujje politique gi may ñu ko fu mu yàkk ak nàkkam alde nañu ko ba seen xol sedd député Déthié Fall moo ko ne sak cuune ak sa waaye di ci wàllu politique moo dugal réewum Sénégal ci tension gi mu nekke ci fan yi di ñëw ak ci élection locale yi ñu jëm lu xew ci ngir mën a éliminer liste yi jóge ci opposition bi député bi di Déthié Fall daaneel beneenub député di Aïda Mbodj jël ne ñun xam nañu ne administration territoriale bi lu ñu def rek yaa leen ko sant liste yi ñuy accepté ak yi ñuy rejeté yaa leen koy wax te tegoo ko fenn lu dul ci sa intérêt bopp Cheikh Mbacke Bara dolli dollil ko ci ne yow Antoine Diome doyotooñu wóolootuñ la ndax ñun ñëpp a seetlu ne yaay loxo bi Macky di sànki opposition bi opposition kaddu ya ko fa Déthié ko samañ ba mu saf sàpp mi ngi wax ci la Sénégal ne yëkkati ay kaddu yu tegginewul di ko teg ci ministre de la république jekkul jaaduwul te see lâche suur soo nañu Aïda ak Déthié Fall lu ne yàkk nañu ko Antoine Félix Diome démb waaye li wax ji di bari bari ak la muy rëy rëy saa xombal di Antoine Diome yëgalu ko yaramam Antoine imperturbable journal Les Échos nañu moom kay da leen a wan carrément ne li ma doon mat naa ko sëkk nee na a jafandu tey jii ci décision yu cour d'appel yi ñoo fi taxawoon doon ngàññaka koy naan justice réew mi dañu ko instrumentaliser nee leen it du caagi ne cour d'appel jox na ñenn ñi dëgg que préfet yeeg sous préfet yi dañoo war jëlaat fi saa yi ñu génne woon loi bi waxul loole Sud Quotidien wax ñu ne coow li am ci liste candidature yi ñu rejeté ak administration territoriale gi yóbbu yëf yi ca cassation coow la teere na ci assemblée nationale démb bi ñuy wote budget bu ministère intérieur règlement de compte moo l'observateur ca yemu fa wax moom Malick Gakou bokk na ci li mu ne partem di grand parti musuta doon te du mësa doon parti bi yóbbaale ma ma yóbbu leen ci journal Le Témoin nopp dalooti ubbil yéenekaay bi journal bi mi ngi ñuy wax ne ay fana ngi ay ministre yu nekk ci gouvernement bi li ñuy fexe moo di véhicule de fonction yi leen état bi jox état bi jaayaat leen ko te li ñu bëgg a oto yi na la ko yàlla nëbbu ndax véhicule de fonction yi ñu leen jox respecté leen wata yi nee nañu mooy li ñu jot a frais ci wata yi mu di assurance bi di carburant beeg entretien yaak réparation ya xaalis bu bari la ci dépensé li dépassé journal Tribune mooy réewum Sénégal ak ni fi fitna ji mel léegi fitna fépp violence partout noonu la ko bi bindee ci xëtamu njëkk xamal ñu ne arène yaa ngi mel ne tooli xare stade yi ñu dëkkee leen a caxat-caxatee université yeeg lycée yi bëgg ak i ma fitna ji ñoom it mel ne mbir mu yéeme nga fa ca crédit mutuel du Sénégal ba ca saam la ñuy tuumaal benn caissière ne dafa détourné lu toll ci ñeent fukki million ndaw sa nag nee na tayu ko ndax benn Camerounais moo fa ñëw gëlëmal ko ba mu tibb ca kees ga ñeent fukki million jox ko mu dem ñu demaat ci xët mu njëkkal observateur fekkaat fa leneen benn directeur d'école bu ñuy tuumaal ne dafa violé benn élève bu jigéen boo xam ne mineur la yéenekaay bi nañu bi ñu koy àtte démb ca chambre criminelle bu tribunalu Mbàkke fa la waxee ne moom mënut a violé kenn ndax du góor maanaam ci gàttal dafa yoom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 jërëjëf Mamadou Mouhamed jërë ngeen jëf mbokk yi xibaar la woon ak RFM àllarba tey jii la ñuy amal lii di njoxeem carte wote yi nga tukkee ci révision yi ñu fi doon amal di yeesal ñeel liste électorale yi lu toll ci juróom-benn fukk ak junniy kart yu ñu war a séddale euh, lu jëm ci wàllu campagne it euh, campagne bi di diir bi nga xamante ni moo jiitu campagne boobee ëllëg lay tàmbali ci alxamis gi maanaam dañu ciy tere lépp luy yëngu ci wàllu euh, tasam xibaar ñu cay def propagande ak dalal kuy def lu ni mel ci wàllu njaay yeneen jëm ci mbërëm wala coalition su ko nag 8 euh, janvier campagne bi bu tàmbalee moom ku ne mën ngaa daal di sampe sa ndëndu nambu la neexee université Alioune Diop bu Bambey jàmm dellu si na fa diggante takk der yeeg étudiants yi ginnaaw ba ñaari wàll yi ku ca ne nangoo yàbbis lëf ñoom étudiants yi yeewi ñaari euh, alkaati yenu tegoon loxo alkaati it euh, étudiants yéen ca jàppoon ñu baleen merok liggéeykat yu Sodefitex dem ci assemblée générale ca Kolda la ñu daal di xamle juróom-ñetti milliards yu état warul ak ñoom di ko sàkku ci kilifa yi ak it di wane seen ñàkk ànd ci tëjug usine bi ca Kolda yooyu aéroport international Blaise Diagne liggéeykat ya fa ci wàllug 2AS euh, ñoom euh, lanu bëgg ñoom it mooy luy gënal seenaw nekkin euh, ci liggéey bi ak it jëlaat ñenu fa dàqee woon ngir coronavirus bi Abdoulaye Diop nekkinu bon ci liggéey bi ci technique bi Abdoulaye Diop. carte yi wote yi nga xamante ni ñoo bawoo ci révision yëpp yi woon ñeel liste électorale yi euh, dinañ tàmbali céddale mi tey ci àllarba gi lu toll ci juróom benn di junniy carte yu bees yoo xamante daal defar nañu ko bu dee ngir citoyen yi bind woon ci diwaanu Ndakaaru ci amoon yéene wote ji ca diwaan yeneen ñoom seeni i ñu ngi koy jëlee ci préfecture département yu nu bindoo woon ñu nu ko waxee six cent cinquante mille cartes yu bees période bi nga xamante ne mooy diir bi ñu dëgmale campagne woote gi nag day tàmbali ëllëg ci alxamis ji maanaam ñuy sàkku ci média yi ñu bañ a waxtaanee wala dalal kenn ko xamante ni wàllu propagande njaay ak yeneen jëmee ci sag wàll wala sa parti yeneen sa mbër euh, moo la tax a jóg fileek juróom-ñaari fan ci weeru janvier euh, la tere gi euh, ginnaaw si campagne bi daal di tàmbali juróom-ñetti fan ci weeru janvier bu boobaa nag ku ne mën nga samp sa ndënd waxee nu ne ngir am mbooloo ministre intérieur moom mu ci kanamu député yi assemblée démb ñu bari ñoom député yi daal di waxtaane ak moom li ñu daal di rejeté euh, dàq lenn ci ay dossiers yu opposition bi moom indi na ci tontu Antoine Félix Diome naka noonu it ay leeral ci administration territoriale bi ñuy joxoñ saa su ne diggée na wote yu jaar ci yoon Moustapha Diakité député yi artu jëwriñ bi yor wàllum biir réew mi rawati nag élection locale yi ñu dëgmal di ci faal moom di nakarlu dàkk bi ñu dàkk liste coalition Yewwi Askan Wi ci yenn gox yi. lépp lu am ci élection yi yéenay responsable yi liste yu bëri président Macky Sall mi dalal kenn ci mandataire yu yebaloon ca Matam tamit teguwul fenn. a nekk. ci loolu Antoine Félix Diome indi ay leeral ci liste candidature yi. lu toll ñetti junni ak ñaar fukk ak fukk ak ñaar ci ay liste déposé nañ ko ci biir réew mi am ay recours yu ci juddu ñu xayma ci juróom-ñaar fukk ak ñaar bi ñu demee ci cour d'appel yi lu mat ci fanweer ak juróom-ñett fanweer yi ak juróom-ñett dañu rejeté recours yi fanweer yi ak ñeent mu indi annulation annulation wu décision préfet yi ak sous lu mi di si addu. pourvoi ko defee warul tekki ni dogal bi ñu joxe ci cour yi waruñu ko appliquer bu fekkente ni da nga clamé dogal boo ni yow ànduloo ci donte bi daf la jox dëgg yoon dafa ni kenn mënagul a appliquer dogal bi loolu la itam ñàkkum kaaraange gi ñu nemmeeku ci auto bi waaye Antoine Félix Diome di xam ne ni dina jël bépp matuwaay ngir selal wàccaay élection yi. Sénégal tàmbaliwul élection tey te fonctionnaire yi nga xamante ni ñooy def organisation bi bokk ci direction générale des élections ak gouverneurs yi ak préfet yi ak sous préfet yi lépp loo xamante ni aju na ci waajal ko ñi ngi ci ba tax na damay dalal xelu ñëpp ci wax ni Sénégal bu jouru élection jotee mën nga dem nga voté ki nga xamante ni moom la yàlla may ndam keneen ki félicité ko ñu jàll ci leneen bu soobee yàlla incha allah. pencum ndawi réew mi woote bu jëw jëwriñ bi yor wàllum biir réew mi ñu xayma ko ci lu ëpp téeméer ak juróom benn fukk ak ñaari milliards ci suñuy koppar. jërëjëf Moustapha ministre bi ñu dénk wàllu tourisme it euh, naka noonu mu ngi woon assemblée nationale la wax. ak lii di ligue des champions ni ki tey jii ci Europe la ñuy daal di amal jogante yu mujj ñeel lii di euh, match de poule yi FC Barcelone nag moom dina daal di sóobu ci jongante gu nar a metti ci diggante mag ñi di waa Bayern Munich ca Allianz Arena de stade bu Bayern Munich moom nag bu fa jëlee défaite dana daal di kon bokk éliminé ñii di waa euh, FC euh, Barcelone bu fekkente ne perte nañ seen diggante ak ñii di waa Bayern Munich match googu incha allah ci groupe E bi la ci bu vingt heures jotee lay daal di euh, doon geneen jongante ba tey ñeel ba tey groupe boobu la diggante Benfica Lisbonne daal di doon ak di waa Dinamo bu di waa Young Boys de Berne Villarreal di équipe Espagne ànd ak kii di Boulaye Dia ñoom dañu daal di fekki Atalanta Bergame foofu la ca Italie groupe G bi ba tey vingt heures tey ci ngoon diggante Salzbourg ak FC Séville Lille di équipe France moom itam jekk lool ngir mën a dana fekk doomu Allemagne di waa Wolfsburg ci groupe G bi lay daal doon groupe H bi ñoom seen jongante dana teel diggante Juventus de Turin ak Malmö beneen bi diggante Zenit saint remporté euh, ñaareelu tikk bi daal di qualifié ci wàllu huitième de finale la ko waral nag moo di ñoom dañoo daal dem ba dem ba ci Portugal fekk fa FC Porto daal di ko daan ñetti bal ci dara Liverpool moom qualifié woon na ba pare laata sax muy joué match démb diggante ba ngi waa Milan AC ñoom nag dañoo gën a dëgëral seen taxawaay ci place bu njëkk bi gannaaw ba ñu fekkee waa Milan AC foofu la ca Italie démb daal di leen daan ñaari bal ci benn kii di Mohamed Salah ak Divock Origi ñoom ñoo jot a dugal butu ñii di waa Liverpool bi nag moo di six victoire si six match nga xamante ni waa Liverpool amal nañ ko eh, ci lu jëm ci wàllu Ligue des Champions Sadio Mané moom itam jot naa jé ci yi ci wàllu groupe D bi foofu Real Madrid moom eh, dafa eh, daan ñii di waa Inter de Milan waaye amul benn conséquence ci waa Inter ndax ñoom itam jotoon nañu qualifié ci wàllu huitième de finale di daan Toni Kroos ak Asensio ñoom ñoo jot dugal ñaari but yi leneen li nga xam ne mën nañ ko wax ba tey ci yile jogante moo di waa Ukraine yi di waa Shakhtar Donetsk ñoom dañoo daal match nul euh, démb seen diggante ak doomu Moldavie yi di waa Sheriff Tiraspol euh, ñoom euh, dal nañu qualifié ci wàllu Europa League ci poule A bi foofu yëf leeroon na ba pare Manchester City moom jotoon na gannaaw ba mu jëlee pecc ci googu le waaye démb ci ñàkk ñaari bal ci benn Mahrez di doomu Algérie moom jot naa dugal ci euh, match googule pour équipe am waaye mujjutu toy Paris Saint-Germain ànd ak sa Gana Gueye ak ki nga xamante ni moom moo di Abou Diallo dañoo dal di daan ñi di waa Cercle Club bu Bruges ñeenti ball ci benn ñaari but Mbappé ñaari but kii di Lionel Messi benn bi ab penalty la na ma leen ko waxee Idrissa Gana Gueye ak abu Diallo ñoom itam jot nañoo euh, football ci googule euh, jongante ci groupe C bi Ajax Amsterdam moom dafa daal di daan ñeenti bal ci ñaar yi ñuy di waay Sporting euh, bu Portugal doomu Côte d'Ivoire bi di Sébastien Haller jot naa dugal démb ab penalty bii nag moo di fukkeelu bitam ci gi Ligue des Champions jamono gi sax moom moo di meilleur buteur ci gi les na benn but ki di Lewandowski di doomu Pologne nekk ca Bayern Munich Dortmund moom démb dafa daal di daan ñii di waa Turquie di waa Besiktas juróomi bal ci dara ki di Alam jot naa dugal ñaar ñaari but waaye ñoom waa Dortmund nag euh, jot ñoo qualifié ci wàllu huitième de finale Ligue des champions ba tax na da leen di daal di reversé euh, ci li jëm ci wàllu Europa League ndax foofu la ñoo fas yéene kon boog yéegali euh, seen i jongante foofu la ci Europe ak Ajax Amsterdam ak Sporting Portugal ñoom. jot nañoo qualifié ci wàllu huitième de finale championnat bu monde bu tegball danañ ko daal di door ni ki tey ji ca Pologne lañ koy daal di amal euh, daanu maanaka euh, benn xeetu sport bi nga xam te ne euh, ah, tennis la nga taxar ñu ngi noonu tennis <laughs> tennis de la hmm. bal ci ci table lañ koy ah. daal di lañ koy daal di amal mu hmm. mën nañ ko méngale sa genre ping pong voilà moom la moo di tegball Sénégal nag ñoom ña nga cee yëngu ñoom ci groupe F bi sax lañ daal di nekk nar fa tasek ñii di waa Tunisie Slovaquie ak ñi di waa Macédoine euh, suñu réew nag ka leen fa daal di teewal moo di Mame Cheikh Fam kaka euh, gunge nag ci poloñ moo di secrétaire général bu teg bool Sénégal di Modou Guèye Seck ñu déglu ko ci téléphone yu suuba ñoom. duñ mujjee jeu double parce que Pape Makhtar Diaw mi nga xam ne moo waroon accompagner Mame Cheikh Fam mujjul ñëw ndax amul euh, amul visa donc Sénégal single rek lay double la ñuy mujjee déclaré forfait quoi. suba mu war a euh, dëgmal match am bu njëkk à part de dix heures trente ci fii nii donc neuf heures trente foofu ci Dakar mu war a jàkkaarloog euh, macédonien bu ci jógee war a dajeeg le tunisien après mujje ak euh, benn slovaque. ñetti match yëpp suba lay am nag benn bi ci suba gi la deuxième bi à treize heures beneen bi je pense quinze heures trente. ambition yi nag bon c'est déjà aller au second tour. parce que euh, c'est une première pour pour Mame Cheikh mi ngi doog a ñëw xale la il n'a que ans euh, am na talent et on a confiance en lui xam nañ ne mën na def surprise bu rëy mais euh, duñ ko teg pression bu bëri dañ koy jox pour l'instant objectif mooy génn ci ci poule bi qualifié en quart de finale et après on prendra match par match. kon boog El Hadj fii lañ koy daal yemale xibaaru tëkkat yi rek. jërëjëf sëñ Cheikh ñu ànd ak Anna Rocha ci chronique culture bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi musée des civilisations noires léegi am na ñetti at mu di anniversaire boo xamante ne màggal nañ ko ci euh, ñaari pàcc benn bi benn conférence bi ñu jegleel artiste bi di euh, Iba Ndiaye mu newoon nag benn artiste bu mag euh, bu ñu sukkandikoo ci docteur El Hadj Malick Ndiaye nekkoon conférence bi. fierté la Sénégal Iba Ndiaye intellectuel la parce que fi nga xam ne philosophe wala benn poète kenn kuy raconter histoire day jël big di bind Iba dafay jël pinceau di dessiner di peindre parce que noonu lay exprimer woo moo mode d'expression boobu nga xam ne mooy peinture te nga xam ne da cee exceller ñëpp xam ko ci da cee raconter histoire nit histoire humanité histoire Afrique sunu cosaan sunu patrimoine tamit sunu futur tamit moo tax mu am ay thématiques yu bari yoo xam ne dako koo muy tabaski par exemple loolu ko gën a xamee muy jazz ak blues am na dessin yu bari ak peinture yu bari yoo xam ne da koo def surnit kuy yuuxu yuuxu boobu danga koy sentir ni dafay changer sax environnement bi nga xam ne ci nit ki nekk parce que Iba Ndiaye daa nekk artiste bu engagé boo xam ne da ko assumer de manière critique nit warul toog croiser les bras biñ ci euh, noppee ci conférence bi amal nañ benn exposition ay œuvre yoo xamante ne moom artiste bi moom moo ko joxoon état du euh, Sénégal euh, exposition boobu ñu ngi ko doon amal ba tey ca musée des civilisations dañ ci déglu njiit la di Amady Bokoum Iba Ndiaye bokk na ci li ñuy wax école de Dakar maanaam lu fi njëkk daal di def euh, lu ñuy wax peinture ak sculpture ak ñu demee noonu euh, mu jëkk fi dem nekk France yàlla def balaa muy génn àdduna waxoon na moom lu mu moom ci li mu dese ci atelier am may na ko Sénégal mu wax ko jabaram Francine Ndiaye ñoom ñaar ñëpp ñu gaañu finalement seen sët yi ñoo contacté Sénégal ne leen ah Iba Ndiaye de waxoon na lii euh, Abdoul Aziz Mbaye moo fi nekkoon ministre la culture ñu dugg ci atelier yi waxtaan ak famille yi dajale œuvre yi téeméer ak ñeent fukk la delloo ko fii Sénégal moo tax ñu ni ren engagement boobu dañ koy respecté institut Cervantes bu euh, Ndakaaru dinañ ko inauguré semaine bi ñu euh, dëgmal mu war a doon xew-xew euh, bu mag loole waral ambassadrice Espagne fii ci Ndakaaru daal di ci woote ab ndaje àllarba ji ci suba war a dellusiwaat kon ci préparatif yu mujj pour inauguration centre culturel espagnol boobee mbokk yi fii la ñu yem ci seen chronique culture di leen bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah.

Samona Marseille ak. yi njoxeem carte wote yi nga tukkee ci révision yi ñu fi doon amal dig yeesal ñeel liste électorale yi lu toll ci juróom-benn fukk ak junniy carte yu nu war a séddale euh, lu jëm ci wàllu campagne it euh, campagne bi di diir bi nga xamante ni moo jiitu campagne boobee ëllëg lay tàmbali ci alxamis gi maanaam dañu ci tere lépp luy yëngu ci wàllu euh, tasam xibaar ñu cay def propagande ak dalal kuy def lu ni mel ci wàllu njaay yeneen jëm ci mbërëm wala coalition su ko nag ca 8 campagne bu tàmbalee moom ku ne mën daal di sampé ndëndu nambu la neexee université Alioune Diop bu Bambey jàmm dellu si na fa diggante takk der yeeg yi ginnaaw ba ñaari wàll yi ku ca ne nangoo yàbbis lëf ñoom étudiants yi yeewi ñaari euh, alkaati yenu tegoon loxo alkaati it euh, étudiants yenu ca jàppoon ñu baleen euh, meruk liggéeykat yu Sodefitex démb ci assemblée générale ca Kolda la ñu daal di xamle juróom-ñetti milliards yu état warul ak ñoom di ko sàkku ci kilifa yi ak it di wane seen ñàkk ànd ci tëjug usine bi ca Kolda yooyu jamono aéroport international Blaise Diagne liggéeykat ya fa ci wàllug 2AS ñoom lañu bëgg ñoom te mooy luy gënal seenaw nekkin euh, ci liggéey bi ak it jëlaat euh, ñenu fa dàqee woon ngir coronavirus bi Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj ci micro bi digital geeg soxna Yacine ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm. LCA auto benn contrat